عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان حديث كراهية الألفاظ الخبيثة من المؤمن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبست نفسي ولكن ليقل لقست نفسي كانت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما من يرنتبي صلى الله عليه وسلم واخنا اجي هروج يوم القيامه dañ koy yëkkatil drapeau pour ba mu ràññee ku ñu koy xàmmee ñuy wax ne lii mooy huri ji diw doomi diw moom moom waajuram ba ca du dara sax dañ ko ci tuddaale moo tax boo defee lu baax ñu tudd ci ñu la meññi boo defee lu bon di la ñoom duwuñ ci dara sax ñu tudd la ci ndax ki tudd nañ waajuram ngir ràññee ko rek moom ba tey yonent sallallahu alayhi wa na ci aïchata radiallahu anha mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa tere na nit ki wax ne sama bakkan bon na waaye bu nit yëgee teyal ci boppam walla lu mu war a ŋàññee bakkanam daal na wax ne sax bakkan bi wow na waaye bul wax ne sama bakkan bon na baatab xub su daal lay bañ nit ki askan ko boppam كنجي أبي هريرة رضي الله عنه موهنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار كانت أبي هريرة رضي الله عنه موهنه ينتمي صلى الله عليه وسلم موهنه يلا نانا دومي آدم fay saga jamono ta man man yalla man may jamono ci sama loxo la guddeeg bëccëg nek kon li tabbi ci jamono ci yalla la kon bul saga jamono ni ngi nak da nga deg ñu wax ne jamono ji nangam ndeyam jamono ji nangam nak sa bop ñaaw la mi nak la waaye jamono xamoo kuy ndeyam sa ba nga ko saga waxtaan wax ju ñaaw gën ca miin isa alayhi salaam ne mbaam ko daf ko romb rek mu ne ko rombal ci jàmm am ku ne ko ah, mbaam ko mi ngay wax ak di nga ko rombal ci jàmm mu ne ko waaw dama bañ a miinal sama làmmiñ rek wax ju wax ju ñaaw yàlla nag amul dara lu mën a tàbbi ci jamono lu may yàllaa ko def moo tax mu ne bu leen saaga jamono ndax man yàlla man may jamono guddeeg bëccëg ci sama loxo lay nekk jamono ci diggante guddeeg bëccëg rek lañ nekk lépp lu fi xew rek ci yàlla la tukkee moo ko moo ko def kon loolu mu lay jàngal gërëm àtte yàlla yi waaye mu lay jàngal tim am jikko ju rafet ak muñ dogal yi an abi hurayrata radiallahu anhu an annabi sallallahu alayhi wa sallam qaala yaquluuna alkarmu innama alkarmu qalbul mumini xadis ji ne yontu salaay salaam dafa wax ne am na ñoo xam ne meññeti inab ni ki raisin karmu lañ koy tuddee sàngara sax arab yi dañ ko tuddee karmu waa ibna ibnu waas wax ne ida muttu fan fut fat fut nii bi karmatin mu ne moom naankat bu sàgganoon la ne bu dee sax nañ ko euh, suul ci euh, garab yi euh, inab li nga xam ne ci la ñuy nalee sàngara yentu nag ne karmu bu ko kenn wax garab yi tudd tuddut karmu mu ne waaye luy karmu mooy xolob aji gëm yàlla ndax karmu ci tedd rek la jógee <coughs> te teddaa dëgg-dëgg ci gëm yàlla rek la nekk inna akramakum inda allahi atqakum te karmu ci karamu gi firi teraanga ci lañ ko jëlee moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne li ngeen di tuddee karmu tuddut ko waaye xolob aji gëm kay kon mooy naam xolob aji gëm mooy loo xam ne mooy mooy lu sell mooy lu baax عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل على صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ينتبه صلى الله عليه وسلم تكنت أبو هريرة مجلج ينتبه صلى الله عليه وسلم أن ينتبه نانا نجين تدو سمتور معنام من تدو محمد tur yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëri na Muhammadu Ahmadu Muhammad al-Aaqib Muhammad al-Maahi Muhammad al-Haadi Muhammad waaye bu leen kunyaa suma ma su ni ki Abul Qaasim Abul Qaasim dàkkantal la moom lañ ko xamee yonentu ne bu leen tudd na ngeen tuddoo suma tur waaye bu leen jël suma dàkkantal di ko tuddee seeni doom yi loolu nag gis nga ne tey jii am na ñoo xam ne seen doom yi ñu ngi leen tuddee abul qaasim ndax am na ñoo xam ne dañ jàpp ne boole tur wi ak kunni dàkkantal bi lañ bañ <coughs> ñu ne li waral xadis ji yonent bi sallallahu daf doon dox am kum dégg mu naan yaa abal qaasim ci gannaawam yonentu bi gestoo foog ne moom lay oo fekk fekk waa ji keneen lay oo koo xam ne dañ koo dàkkantale abul qasim yonent bi ne na ngeen tuddoo suma tur te bañ a dàkkantaloo suma dàkkantal bu fekkee loolu moom mooy xikma ji bu boobaa na ñoo xam ne moo tax ñi gis ne kon loolu ci dund yonent bi ne ndax tey kenn man ko man taxoo kenn ba jaxase koog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dàkkantal xam nga arab dàkkantal lu màgg la ci moom benn waykat daf ne uknihi hina unadihi li ukrimahu wala ulaqibuhu assawatu laqabu bu ma ko yowoo dama koy kunyaal kunya ngi mel nga ne abul qasim wala ba ishaq aba muhammad arab dana jox ku eh, li ñuy wax abul qasim dégg la yonent doomam qasim la waaye loolu taxul sax ñi duñ ko ñaar ko abul qasim arab dana dàkkantalal koo xam ne amagul doom xale bu ndaw sax am dàkkantal waaye baat la buñ doon bu ñuy teralee kuñ koy ooyee li gën a léemtu daal comme yonent sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne tudd suma tur bañ a dàkkantalee suma dàkkantal ndax ci dundam rek la wala ndax boole ñaari tur yi yëpp la li gën a léemtu daal moo gën a moo moo gën a mucc ci eh, uute ndigal loolu ñu teg ci ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ku ma gis ci nelaw man nga gis dëgg-dëgg ndax man seytaane du jël sama mel ku gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci nelaw rek moom nga gis ndax seytaane manta jël melo yonent bi manta jël formam ñu am na am na riwaaya boo xam ne dafa ne ku ma gis ci nelaw da ma gis te seytaane du melloo suma mello looloo tax ñi nga xam ne sufiyaanke yi ñi nga xam ne ahlu taxqiq yi ñi nga xam ne saxal nañ gis yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu du nelaw ñoom foofu lañ ko jëlee nag ku gis ci gént dañ ko gis ndax moom seytaane du jël meloom képp koo xam ne nag danga gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci melowu rafet sa melo lay sa melow diine lay tegtale yow nit ki mën naa gént gis ñe ñu yonent la gis ko ci melo woo xam ne duul melowu xeeyoo yonent bi boobaa dafay tegtale dafay tegtale dara ci diine ko loolu lu wér la yonentu teg ci ne ku ma fenal te fekk yaa ko tey na nga xadu na nga pare sa paras place ci safara bu fenel yonentu bi fekk yaa ko tey mu ne na nga xadu sa place ci safara lu tax mu dëppale ko ku ma ku ma gees man nga gis dafa mel ni sax mu ngi mooy tëndikuloo oote gis gi te gis gi xamul fenal yonentu bi sallallahu alayhi wa moo gën a màgg ci fen yi fekk yaa ko tey wax ne yonent bi wax na nangam te fekk yow yaa ko sos rek ci sa bopp wax ne yonent bi moo ko wax bokkut ak nga dégg xadis ju ne yonent bi moo ko wax nga nettali ne xadis ba wax na nangam te mën naa am xadis ja wérul boobaa boobaa bàkkaar te loolu du la ci jot ndax yow danga nga li nga jot waaye bokkut ak sos fen woo xam ne xam nga ne duut la yaa ko fen nga fenal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a màgg ci fen yëpp ku gëm yàlla du fen waaye fenal yàlla ak yonentam moo gën a màgg ci fen yi an abi hurayrata radiallahu anhu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama axnacu alasmaai inda allahi yowma alqiyaamati rajulun tasamma malika al amlaaki tukkee na ci abi hurayrata radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama wax na ne tur yëpp ba ca gën a torox ba ci yàlla gën a bañ ci tur yi yowmal qiyaama koo xam ne dafa tuddee boppam ne moom mooy buuri buur yi ku tuddee sa bopp ne malikul muluki wala malikul amlaaki tur la boo xam ne moom la yàlla gën a bañ ci tur yi loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yowmal qiyaamati boobu tur mooy tur bu yàlla gën a bañ loolu ndax lim làmboo ci rëy rek ndax rëy mbalaanam yàlla la moom kenn buuri buuri kay kenn rek la moom mooy yàlla waaw ku ko tuddoo jël nga tur woo xam ne nii moomuloo ko عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول عتس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر ولم يشمت الآخر فقال الرجل يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني قال إن هذا حمد الله وأنت لم تحمد حديث ndokkeel koo xam ne nii dafa tisóoli ku tisóoli nga ndokkeel ko mu ne dafa am waajoo xam ñaari nit dañoo toog ci kanam yonentu sallallahu alayhi wa sallam dañoo tisóoli ci kanam yonentu kenn ki ba mu tisóolee yonentu bi wax ko ne ko yarhamukallah keneen ki tisóoli yonentu bi waxu ko dara keneen ki nga xam ne nag yonentu bi ndokkeelu ko moom mu ne yonentu ah yow diw dafa tisóoli nga ndokkeel ko te man ma tisóoli te ndokkeeloo ma waxoo ma dara yonentu bi ne ko ki njëkk ki dafa sant yàlla yow santoo yàlla lii na ci tishooli nit bu tishoolee dafa war a wax alhamdulillah bu waxee alhamdulillah yow mi ko dégg nga wax ko yarhamukallah moom it mu ne la yaxfirullahu lana walakum loolu mooy sunna ci tishooli am na beneen riwaaya boo xam ne wax na ne bu nit ki tishoolee ne alhamdulillah دانكو نغا واخكو يهديكم الله ويصلح بالكم نداخ من نغا واخ بي ولا من نغا واخ بلي بولا سي نيه امنا ньо خامني دنج بولا ñaar ييب صاح امنا ньо خامني دنج واخ نه آه، يهديكم الله ويصلح بالكم لولو ندوكل مي ديلو كو تي شولي كو خامني دو تي ني اهل الكتاب ني امنا كو ماسا توك تي كانام يونتي كو خامني تي اهل الكتاب لا بوك مانام دو جوليت muti cooli yenantu bi en dokkeel ko la yahdikumullah wa yuslih baalakum waaye ñaar yooyu yëpp ñaar riwaay yëpp sax na jóge ci yontu di leen beneen riwaaya bi yaxfirullahu lana wa lakum yarhamukallah moo gën a siiw xadis tashahud almashru fi salaati an abdillah ibni masudin radi allahu anhu قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال إن الله هو السلام فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير بعده من الكلام ما شاء تكينجي عبد الله ibn mas'ud radiyallahu anhu mu wax ne dañ nekkoon nañ buñ jullee ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama maanaam bu ñuy jàng taaya dañ daan wax ne assalaamu ala allahi qabla ibadihi assalaamu ala jibrila assalaamu ala mikaila door a wax assalaamu ala fulaan di nuyu keneen kuñ mën a nuyu rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallama tukkee ci julli wax ne jublu jubloo mbooloo mi ci xarkanamam loolu mooy sunnaam bu julliaan ba sëlmal ab diit dana jublook mbooloo mi nga xam ne ni ñoo nekk ci gannaawam ne leen yàlla ci boppam moom mooy salaamu kon doo ne assalaamu ala مولان مولان مانام بولن واني السلام على الله اندخ سلام مو يالا غيس نغا كو تي اسماء الله الحسنى السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر السلام هو الله يالا ان الله هو السلام لنا يالا مو موي سلام كين تي ين بو توغي تي جولي مانام توغاي تحيات تشهد نا واخ باد يي نكو واخيني بولن واخ لا نين واخ نيوم دنج دون دنج دون ne salaamu na nekk ci yàlla nekk ci jibril nekk ci mikaayil doo nekk ci diw ak diw yonent bi ne leen da ngeen di wax ne attaxiyaatu lillahi alsalawaatu waltayibaatu assalaamu alayka ayuha annabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu alayna wa ala ibadillahi صالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دي لا تحيات لين لين جس بين الرواية التحيات لله ذاكيات لله طيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يونتنا لين بغين دي تحية لين غير واخ دغين دي واخ التحيات التحية موي سلام باتي كون تحية موي جام جام تي yalla رك la tuké yalla mom moy jam motax nga ne yàlla moo ko moom nga ne assalawaatu salaat ba tey mooy ñaan waaye fii ñaan yërmande la waaye salaatu ci luga rek buñ ko waxee ci lugal arabiya buñ ne assalaatu aslan fil l arabiyati moom mooy ñaan ñu door a ñëw nag assalaatu julli gi nga xam ne nañ ko muy jàng fatiha ak saar ci alquran lambooy i ponk ruko su ruko dégg nga taxaw ak ruko ak ak ak ak toog tashahud ak salatu nga xamne kon salatu salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam salatu dana firi rahma ulaayika alayhim salawatu min rabbihim wa rahmatun boole na ñaar yëpp waye ño bokku fofu lu ñuy firi kon batay yermane yàlla rek ku mom ci yàlla lay jugee salatu danañ ko def ci keneen ku dut ab yonentu ndax yonentu sallallahu alayhi wasallam sallam na laaj azaka ñi am ñu ñi indi asaka ci abi awfa indi asakaam yonent bi ne allahumma salli ala ali abi awfa warhamhum da nga julli ci ñooñ abi awfa te nga yërëm leen yërëm moo tax tim baatab yërëm li nit ñi foog ne ya rahimahullahu ku dee rek lañ koy wax déere mu ngi nii yonent wax ko ñi allahumma salli ala ali abi awfa warhamhum waaye olof léegi boo ko waxoon ne ne ko yàlla la yàlla rek dafa foog ne da ko bëgg a tàggee te ci man loo dunde lu may ci yërmaande yàlla waaye wax na ne yàlla attanuñ ci moom dara ñun lu may yërmaandem rek wan salaatu yërmaande ba tey ci yàlla yàlla ko moom ak tayibaatu yi tee yépp kay demet lépp kay yàlla ko moom nga door a wax ne assalaamu aleyka ayyuhan nabiyu ñu ngi lay nuyu yow yonentu bi wa rahmatullahi wa loolu ci dun ci teewaay yonentu bi ak fàddoog yonentu bi yëpp noonu la ñuy jullee moo tax euh, euh, ki nga xam ne fa doon werenteeg baay ci euh, mu ne ci ci makka am ko werenteeg moom ci affaire yi maiyatullahi tabaraka wa taala ne ko yéen gannaaw bu werentee ci tariqa tijaan ba agsi ci nag ne ko yéen seen sëriñ cheikhu tijaani dafa am lu wax man d'accord ma ci bàyyi ne ko lan la wax mu ne koy eh, Cheikh Tiyaani seen sëriñ bi dafa wax ne allahu maa kulli ahadin bi yi dafa wax ne yàlla mu ngi ànd ak nit ku nekk ak jëmam bàyyi na loo wax mu ne man damaa wax ne yàlla mu ngi ànd ak ku nekk ak xam-xamam ko xam-xam melow borom la melow ak ak ak jëmm duñ tàggali ko comme yàllaa ngi ànd ak ku nekk ak ak xam-xamam kay mooy ne yàllaa ngi ànd ak ku nekk ci jëmmam ah, bàyyi na ko lu ñuy gis nii lan la li ñuy gis lan la mu ne ko yi ñu gis nii ay ay jeexiti jëf yàlla la maanaam yàllaa ko bind daal moo ko fi def bàyyi na ko moo bind lii moo ko jeexital ba mu ko jeexitalee fan la dem man ak yow mën nañoo jeexital dara jugee ci barab bi dem ci barab ndax toxu mën na ci suñu xàq comme yàlla moo jeexital lii te moom toxu jomm na ci xàqam kon kay moom ba jeexitee lii fan la dem bàyyi na ko waxuma la yàlla waaye dama la wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ànd ak ku nekk ci jëma waa ji ne ko ah ala akbarum ixtiha moo gën a rëy li njëkkoon a wax bàyyi ne ko ah yow yow yow yow yow yow arab nga mu ne ko waaw da ngay julli mu ne waaw booy julli da ngay jàng eh, taxiyaatu lillahi da nga def tashahud mu ne waaw lan ngay wax du assalaamu aleyka ayyuha nabiyu ngay wax ndax arab dana wax dana wax aleyka lu may koo xam ne mu ngi teew ci kanamam yow kay bu fekkoon da jàpp ne yonent bi daf laa faatu lu tax ngay assalaamu aleyka yon teewaay yonent moo tax ne ko waxuma la loolu waaye sax jàng ci xadis ji wér ne képp ku dee ñaari malaaka dana ñëw dekkal ko teewal yonentu ci kanamam laaj ko loo xam ci waa ji bu fekkee ne ku gëmoon yàlla la ku texe la yàlla saxal ko ca baat ba mu nekkoon mu dëggal yonent bi sallallahu alayhi wa bu fekkee kuy texea di la tim mu nekk ca lam neewoon rek ñaata nit ñooy dee ci ci ci benn waxtu ci ci barab yu fasantikoo te fekkee ku dee rek danañ indi yonent bi ci xabrom laaj ko loo xam ci lii loolu kay lim tegtale mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi nekk ku nekk ci jëmmam waa ji ne ko beesalal ma suma gëm yàlla asalaamaaleykum ayyuhan nabiyyu loolu lim tegtale mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kay mu ngi teew waxtu wu nekk ndax wax yonent bi jàngale woon ne ne ne saxaaba yi dund ak moom ñooy wax loolu bu fi jugee keneen du ko wax ñëpp mu ñuy taxiya asalaamaaleykum ayyuhan nabiyyu la ñuy wax wa rahmatullahi wa barakatuhu yaa ngi ñaanal kóllëre yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaa ngi koy ñaanal yërmaande yàlla te yonent bi mooy jëm yërmaande yàlla ku ñaanal yonent bi xanaa loolu ngay def mooy miskin rek muy seet si abuur indil ko euh, indil ko sërice rek pour buy dem moom it mu jox ko yóbbal bu mu demee kon julli ci yonent bi ñaanal yonent bi dunguru la waaye ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal xeet yonent bi la ndax xeet bi waxtu wu nekk ñoom ñi ngi soxla kóllëre ñi ngi soxla yërmaande yàlla waaye kuy ñaanal yonentu la ngay ñaanal yonent bi yonent bi am na ko waaye yow yaa ko gën a soxla wa ala ibadillahi salihina yonentu ne ko bu ngeen bu ngeen boo ci tegee loolu maanaam mucc ak yërmaande yàlla nekk ci yonentu ak barke eh, ak mooy barke mooy lu baax rek ak nekk ci jaamu yàlla yu baax yépp yonentu ne baat boobu boo ko nag fépp bépp jaamu yàlla bu baax ci asamaan ak suuf ñaan googu dana àgg ci moom mm. gis nga ñoom buñ daan julli dañ ne assalaamu lillaahi assalaamu alallaahi teg ci di ñaanal jibril ñaanal mikaayil yonent bi wax leen lu gën a mat ndax jibril ak baax nañ lool waaye ñoom ñaar la làmboo te xeeti malaaka la làmboo waaye assalaamu ala iba saalihiina ne yonentu wax ne boo waxee loolu jaamu yàlla bu baax bu nekk ci asamaan muy malaaka yépp euh, waa malawul ala lépp ak bépp jaamu yàlla bu baax ci kaw suuf rek boo waxee loolu ci sa biir julli ñaan googu àgg na ci moom loolu nag dafa am leneen luy jàngale Baay wax na ne képp ku bàyyi julli loor nga jullit ñëpp bàyyi julli bàyyi nga jullit ñëpp ndax kuy julli yaa ngi ñaanal jullit ñépp ñaan googu nga xam ne yonent bi moo ku garanti ne dana jot képp ku baax te ku julliwul ñaan googu xañ nga ko nit ñi moo tax képp ku julli rek yaa ngi ñaanal jullit ñépp booy jàng taxiyaat la ñu baax ñépp kay ñu mas a xam ñu nekk ci asamaan wala nekk ci suuf waaw loolu nag ku ko sàgganee sàgganee nga ñooñu ñépp loolu daal sàggandaw <coughs> nga doora tëj ci nag ne ashhadu an yi jeexee ci tinki nit ñi ci ñaan yenent bi teg ci ne gannaaw loolu nag nga tànn ci baati ñaan baati wax yu baax lu la soob loolu tinki na nit ñi ci ñaan ñaan goo xam ne sax jolewoo ko ci ësër te fekk yaa ngi ci julli rawatina nag ku nekk ci julli moo tax ñii weddi nit ñi ñaan ñii weddi ku jàng salaatul fatih wala weddi ku wasifa wala weddi ku wirdi lazim dañoo xalaatu ci liñ jàngal bu fekkee julli la la yonent bi jàngal ne ne taxiya nii laa koy defee nii ngeen ko war a defee waaye lii ma la wax nii boo ko jàngee ba pare ñaan gu baax goo xam tànnal baat yu baax loo ci mën a yokk nga yokk ko ci xewi na la foofu tënk na la ci moo tax ñi tënk nit ñi te muñ tënk ak tinki du tax tënku kenn ci lu mu war a tënku nit ñi bu ñuy tënku ñu ngi tënku ci yi nga xam ne mooy shaariu muy rasulillah sallallahu alayhi wa moom moom tënk ak tinki ñi nga xam ne tim dégg nañ waxam dégg gi gi moom ñoom it mën nañ leen a topp ci topp yonent bi sallallahu alayhi wa waaye sa xam-xam daytalu sa leeri xam-xam daytalu loo xamul rekk ne baaxut loolu daal gàtt xam-xam la wala ñàkk ndigal ci oote jëm ci yàlla an abi hurayrata radiallahu anhu an innabii sallallahu alayhi qaala إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تتمنى ذلك وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذب ينتبه صلى الله عليه وسلم نعم. تكنت أبي هريرة رضي الله عنه مجلج ينتبه صلى الله عليه وسلم موحنه yalla bindina ci doomi adama ciram ci njaalo jot na loolu ci lu wut sikk maa mun na koo jot <clears throat> njaaloy bët mooy xool njaaloy làmmiñ mooy wax njaaloy bakkan maanaam xol bi mooy mébét mébét ak xemem pay bi nag dëggal loolu mbaa mu fen loo kon nit ñi war nañoo moytandiku làmmiñ war nañoo moytandiku seen bët yi ubbi say bët yi di xool fu la neex jigéen juróom nga xool boo xoolee xoolaat loolu mag nga cee jëlee njaalooy bët rawatina ci jamono joo xam ne nit ñi bëri jigéen ñu bëri dañ tuddoo lislaam waaye duñ muuru léegi dafa am ku ma oo ci angleterre laaj ma laaj boo xam ne li li ko waral mooy doomi jullit ñi ak ak ñi tuddoo taalibe te tënkuwuñ ci tënk sëriñs bi ñoom waa foofu lañ mu oo ma ne ma ñun de fan yii dañoo dem teew benn gàmmu bu taalibe yi doon def ma ànd ak benn jigéen boo xam ne dafa jël sax tariqa bees waaye mu ngi nekkoon ci tariqa baalu yi mbooloo moom doon nekk muuru rekk lañ xam mu ñëw moom teewee ci gàmmu googu fekk fa ay gambien ak ay waa Nigeria ñi teew ci gàmmu ga kenn muuruwu ci affaire boobu nag jaaxal ko lool ma ne ko xoolal yow xoolal yow na xool ci dëgg na jéem a xàmmee lan mooy tariqa bi door a xam ñooñ tariqa bi na xàmmee lan mooy diine ji door a xàmmee ñooñ diine ji Seydina Ali dafa wax ne xamal dëgg nga xam ñooñ dëgg xam baatil xam ñooñ baatil ci dëgg lañuy ñuy xamee nit ñi waaye duñ xamee dëgg ci nit ñi loolu mooy lan lii mooy dëgg boo ko xasee ba xam ku ko def niti dëgg la waaye boo xamul dëgg ba pare di xaar rek borom daraja ju def rek nga ne lim def baax na ndax moom borom daraja la wala ku tuddoo ne ci tariqa bi la nekk rek lu def rek nga ne lii mooy tariqa bi te fekk yow yow yaa jàngu tariqa bi boobaa da nga trompé wu ndax jullit ñu bëri ñi nga nekk ne ci julli lañ te duñ muuru mu teg ci saaloo loo gën a garaaw mu ne ba julli jotee suba tim dama gis ne ñun suñ mbooloo mi maanaam ñooñu nga xam ne ay bees lañ ci diine mu ne damaa gis ne suñ mbooloo mi rek ñoo julli ci jigéen yeneen jigéen ñi julliwul ma ne ko li ma la mën a wax daal mooy ñoom présenté wuñ présenté wuñ diina ji présenté wuñ tariqa tijaani seen bopp lañ présenté ndax bëri na fii ñu bëri fii Sénégal ñoo xam ne dañoo juddu téeméeri at seen maam yi am nañ ko ñetti téeméeri at am nañ ko ci lislaam jullit lañ rek ci tour nii jàpp nañ ne ñoo gën a xëy ku nekk ci lislaam te fekk duñ topp dara ji lislaam loolu dañuy nax seen bopp rek dégg nga tënku la <clears throat> inna awla naasi bi ibrahima la tabauhu wa hada nabi la yàlla wax mhm. ñi gën a xeey ci ibrahima mooy ñi ko topp ak yenent bi nga xam ne diine mooy diine ibrahima kon tim tariqa bi tim noonu la mel moo tax lu garaaw la nga askanoo mbir ba pare nekkoo ci ndax danga nekk fitna ñeexal nit ñi dana am koo xam ne mu ngi buggoon mbir moomu di ko seet bu la gisee rek gis ci yow lu doye di loo xam ne moom fa mu jugee woon ba jàpp ne bu duggee daf cee war a jëlee dayo yu gën a kawe mu ñëw gis ñuy tuddoo tariqa bi di melloo melokaano boo xam ne nii ñam jóge woon te bëgg am ndollal ci tariqa bi gis na ne loolu ñoom paase nañ ko bu yàgg loolu raglu la loolu raglu la képp koo xam ne danga askanu ci ci ci ci ci ci tariqa tijaani askanu ci Cheikh Ibrahima radiallahu anhu danga war a tënku ci yoon yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi waxtu wo tanku ci yoon yonentu bi sallallahu alayhi wasallam war nga fexe ba ñi jëflanté yow ñi xamé ne li yow la way li du tariqa ndax tariqa bi jubla faydu bi jubla tariqa bi ñëwut pour indi fi dara ci lu bees ci diine ci baye dafa wone al waliyu yati bi fahmin jadid wa la yati bi shay'in jadid al albattata waliyu du indi mukk du sos lu bees ci diine dafay indi kay dégg gu bees te dégg gu bees yonentu sallallahu alayhi moo ñu xamal ne lu mën na lu mën a am la Seydina Ali laaj nañ ko ndax yoon ndax am ngeen téere bu dul alquran mu ne déeréet alxuraan rek lañ am aw fahmun utiyahu rajulun salihun xanaa dégg boo xam ne yàlla moo ko jox nit ku baax ku gëm yàlla yàlla dolli ko dégg boo xam ne keneen xamu ko dégg nii moom dañoo ute loolu moom mun naa am waye tariqa ñëwul yok ci dara ci diine ji ñëwul ñëwuñ sañuñ pour pour pour folli dara ci lo xamne mo fi nekkon ci diine ji fayda bitim nonu noonu bàyyi nee na wa maa lanaa إلا اتباع أحمد والاقتداء حظي وقلت منشدا وما لنا إلا اتباع أحمد من كي روي موي سما تشر موتاخ ماغي واخ تا كاو دي واخ illa لنا ahmada amuñ lumay امون Mm-hmm. kon ku ne war nga ci bàyyi xel lu bàyyi wax ne ma adara ala al amati min akabiri amul lu gën a mën a lor am yi ak ñi nga xam ne bees lañ ci mbir mi eh, rëcc ndëggu mag ñi bu fekkee ne yow da nekk ñu ne kii la ñu ne eh, kilifa la ci lislaam ba pare mu sàggan lu mën a def rek nit ñi mën nañoo foog ne ay ñun ñoo ci àggul rek waaye e, maqaama kilifa sax boo ci àggee am na yoo xam ne moom tënkatu la du dëgg dëgg buy tinki nit tinki nit ci li yonent bi tënku maqaama boobu amut maqaama nu mu gën a kawee gën laa tënk ci yonent bi sallallahu alayhi wa loolu mooy maqaama moo tax Baay wax ne man de xéem naa maa xéem naw naa naw naa jullit bu nekk waaye naw gi ma leen naw mu ngi uutante ci kem niñ kem niñ donnoo ci yonantu bi sallallahu ku la ci gën a donn ci yonantu bi rek kooku moo gën a xeeyoo mu mu naw comme nag ñu jamono joo xam ne kum neex nga sol la neex yow tim bul boyal say bët di xool fu la neex boobaa danga am zinal ayni zinal lisaani njaalooy làmmiñ ñee ndax lii làmmiñ ak bët ak bakkan bi mébét ci rek loolu la em wala misaal la ci lépp loo xam ne rek mën naa ubbi bunt ci loolu lii lañ tudd waaye misaal la ci lépp loo xam ne mën naa ubbi bunt ci njaal bakkan bi mooy xemem di mbébét <coughs> waaye nag pëy moo koy dëggal mbaa mu fenloo kon mu mel nii jiitu mooy am na ñu ko tuddee ne mooy lëmama nga xam ne yi jiitu njaalo nga xam ne àgguñ ci dayoom njaalo waaye ni nit ragalee njaalo la ko war a gën noonu la ko war a ragalee ndax moom mooy moom mooy sëwlu عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ولكن تفسحوا وتوسعوا تكينت ابن عمر رضي الله عنهما من ينتبه صلى الله عليه وسلم آينا يكتي نت ci palaasam ngir teg fa nit waaye na ngeen yaatalante na ngeen hubbi hubbeeku na ngeen yaatu yontu bi sallallahu alayhi wa sallama aaye na loolu ñu ne loolu ndax ci ay jotaay yuñ jagoo la walla ci bépp jotaay la dana mën naa ñàkk leen bépp jotaay waaye lu jara moytandiku la waaye terewul ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne na ngeen aaye seeni dof ak seeni ndaw na ngeen leen aaye seeni jumaa yi loolu mooy fekk nga fekk nga ñu toog nga yëkkati leen moo tax nit tim war naa xam fay dayoom rek mu em fa rahimallahu imran arafa qadra nafsihi fa waqafa dunahu yal na yàlla yërëm koo xam ne xam na dayoom mu taxaw fa ku ndax xale bu ñëw tim place boo xam ne ay mag ñi ngi taxaw amuñ fuñ toog xale ñëw toog kooku warta xaar kenn ekkati ko waaye lislaam daal mu ngi jàngale rek ne yow bul xeeb kenn bul xeeb kenn ngir yëkkati kenn ci kawam lislaam a ngi jàngale bu kenn tiitaru puukarewu ci kaw kenn yonent sallallahu alayhi lu doon baaxam moom bu ñëwaan ci jotaay masta tànn barab yajlisu haysu mattafaqa lahul majlisu fu mu jot rek foofu foofu lay toog moo tax nekk na ci jumaam am am ñetti mbooloo am ñett ñu ñëw am koo xam ne fa ñëw dugg ci mbooloo mi am koo xam ne fa ñëw ba tiim mbooloo mi am kersa toog ca gannaaw kenn ki ñëw ba xool mbooloo mi dëpp dem yoonam yeneen tubam pare ne lu ngeen xam ci ñetti mbiri ñetti gaay kii moom tàppewu na jëm ci yàlla yàlla tàppewu jëm ci moom kee hidrus na yàlla yàlla rus ko keneen ki nag dëddu na yàlla yàlla dëdd ko كفارة كوغن شلود دي الله تكينا شي أبي هريرة رضي الله عنه مو وحنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق yonent sallallahu alayhi wa sallam tukkee na ci abu hurara te mu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ku gëñ ci laata mbaa mu gëñ ci uzza misaali gëñ ci luñ jaamu lu dul yàlla na na ko kaafaraa wax laa ilaha illa allah ko wax ne maa ngi gëñ ci laata maa ngi gëñ ci uzza dégg nga wala yow la fi wax maa ngi gëñ sama géño baay gëñ gëñ ci loo xam ne yow yaa ko màggal kuy gëñ na nga gëñ ci yàlla mbaa nga bàyyi ci yàlla la ñuy gëñ waaye duñ gëñ ci leneen <coughs> yàlla moom moom mooy gëñ ci mbindeefam yi yàlla gëñ na ci bind màggal leen wal fajri wa layaalin ashrin wa shaf'i wal watri wal layli ida yasri loolu yëpp yàlla mooy gëñ fajar ak fan yi nga xam ne mooy fukki fan yi zilhijja dégg nga yëpp mooy gëñ ci lu màggal wa والعصر إن الإنسان لفي خسر لولو يالا موم موم من لولو يالا موم دا غن سي لوم بيند واي مينديف كوي غن وارلو غن سي لين لوما يالا موتا يونت نيكو غن سي لات با غن سي عزا نانكو نانكو ديفاري واخ لا اله الا الله كو واخ كو كو واخ كو واخ مورامام نيكو واي نيول نجي كارت نيول نجي كارت na na dem defare lolou dem saraxé waaw carte dafa xaraam kon ku xootee dem carte bul carte yonentu nee na defaree euh, kaafara loolu nga dem saraxe lu nekk jàngoro yi daal dañoo am saafara waaw gën ci laata uzza gën ci lu leen lu ñuy jaamu lu dul yàlla lu koy saafara mooy nga tuub dellu ci yàlla waaw am na ñoo xam ne nii jàpp nañ ne ngëñal fase du wut gëñ téere bu mu mujj jàng rek dee mujj ci guddi mu ngi wax loolu ne ngañal fase duut gëñ wax ne nit ñi li leen sonal dëgg-dëgg mooy mbiri fase ni ko alquran tegee yonent bi tegee ko ko buñ ko ko doon defee fase du gaaw a am waaye nit ñi dañ ñu def loolu ndax dañ nit ki dafay toog maa ngi gën ci fase maa ngi gën ci nanga mu ne man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa warad yontu sallallahu alayhi wasallam ne nag ku ku ku ku sax dugal ci suñ mbir mi loo xam ne ni bokk ci loolu radd la delloo nañ ko bokkut ak nag maa ngi gëñ ci gëñal fase xam nga bokkut ak gëñ naa ci yàlla bu nangam amee ma fase kooku ci yàlla nga gëñ waaw waaw waaye maa ngi gëñ ci fase sama jabar loolu du gëñ ci bunt boobu ñenn borom xam-xam yi nga gis ne dañoo gis ne loolu du gëñ kon loolu fase du ci tàbbi nit ñi buñ doon dem lu leen yàlla wax ci fase fase du gaaw a du bëree ni mu bëree nii ndax faseem sunna nit ki warta fase jabaram lu may mu ngi ko fase ci laab goo xam ne tàbbiwoo ceeg moom te ndaw si du génn foofu ci kër ga loolu fase fase fase mën na cee ñàkka bu fekkee ne nit ki sa jabar parce que nit ki mën naa am jabaram nekk ci mbërëg mu gis ne moom fan yi nekku jabaram mu mer rek ne ko fase naa la waaye jabar joo xam ne mu ngi laab dara doxut sa diggante ak man a sëy ak moom nga ne ko fase naa la mu des ci laab googu ba ba laab gi jeex te sëyoo ci ak moom te jëlaatoo ko te du ngeen te du génn kër gi boo ko génnee kër ga yow def nga loo xam ne jaaduwul génnewuñ ko kër ga moom it mu mu mu mu mu mu mu dem génn tax dëppawut ak li lii lislaam wax lislaam li wax mooy ne na nekk ci laab goo xam ne jëkkër ji sëyu ceeg moom mu fase ko ci biir laab googu te du génn ci kër ga bu demee ci diggante boobu feek set feek feek feek feek feek mbëragut ci diggante boobu mën naa jëlaat jabaram te du tere mu nekk benn fase te bu demee ba fase ba génn kër ga li yàlla wax mooy baatu xakama min ahlihi wa xakama min ahliha in yurida islaahan yuwaffiq illaahu bu loolu amee tim nañ tànn kenn ci mbokki ndaw si ku teewal ndaw si ak kenn ci ku teewal góor gi ñi toog waxtaanee loolu bu fekkee ñoom ñaar lu baax lañ ci jublu yàlla dana leen dëppale loolu yàlla digée na ci dëppale bu ne Sidna Omar am na ñu ñoo xam ne dañ dañ leen ebal pour ñu defar benn sëy ñi ñëw affaire bi mu ne mu ne mu mu mu yàq a jubal ndax yàlla moo wax ne yurida islahan yoo fiqi moo tax yooyu yëpp yàlla teg nag nga xam ne nii moom mooy tax passé bi du àgg fi mu war a àgg nit ñi dañ koo sànni ba pare nag di foye seen foye foye seen diine foye seen kër foye foye sa kër mooy na foye nga sa société foye nga sa société mooy foye nga sa dëkk bi foye nga sa mustaqbal foye nga sa diine waaye bu fekkoon ne nit ñi li ñuy war a tënk dañ koy tënku ci ni ko yàlla tënkee boobaa yu bëree ngi yàqu te du yàqu ndax boo fasee sa jabar ngeen nekk ci kër gi te du te xaraamu ci yow nga nga nga nga jalaat ko dégg nga nga koy gis mu lay gis sa mer demee sa xel del siaat yonentu sallallahu alayhi wasallam nee na jullit maanaam jëkkër sax laa yafraku muminun muminatan maanaam jullit bu góor du bañ jullit bu jigéen bu amee lu ko mét naqadi ci moom rek am na leen lu ko war a neex ci moom ku bugg téye sa kër nag da ngay seet yi la naqadi nga muñee ko ci nga nga muñee ko yi la neex ci moom waaye sori taalima rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moo indi loolu yëpp yal na yàlla dimbale ci tënku ci buum yi yonent bi